loo man man dana am bés doo man dara. loo man man dana xam ne. dara doo ko man dara. dara doo ko man day mel ni du na waa ji mënoon. day mel ni duhun na yaay waa ji mënoon. kon nag buur dëgg-dëgg moo di yàlla. kon nag buur dëgg-dëgg yàlla rek la. kon nag ñu ngi ci àddina. kon nag ñoo ngi ci àddina. mënuñoo bañ a sakko àddina. mënuñoo bañ a sakko àddina naam. ndax ñu ngi nekk ak bakkan boo xam ne. ndax ñoo ngi nekk ak bakkan boo xam ne. dafa am soxla yu du jeex. dafa am ay soxla yu du jeex. ñu gàll ñuy njaboot. ñu gàll ñuy njaboot teg ci. kon nag fokk ngeen sakku àddina. kon nag fokk ngeen sakku àddina. waaye bu mu leen tax a fàtte yàlla moomu. waaye kat bu mu leen tax a fàtte yàlla moomu. dara jarul fàtte yàlla. dara yàlla de. métier moo mën a métier woo rek. métier moo mën a métier woo. ba am sa wéy waay. am ca loo wéy. te dellu ci sa borom di ko topp. te dellu ci sa borom di ko topp. rek loola baax na. loolu moom baax na. waaye loo def nag ba mu tax laa fàtte topp yàlla. waaye loo def ba mu fàtte loola topp yàlla. loola musiba la ci yow. loola musiba la ci yow dara du la ci mooy. soo ko tegee xéewal musiba la. soo ko tegee xéewal it musiba lay da ci yow. ndax yàlla na ne am na ci seen i jabar ak seen i doom noon. looloo tax yàlla ne xam na ci seeni i jabar ak seen i doom seen noon. mooy nga soxla woo leen ba bàyyi yàlla. moo di nga soxla leen. bépp ba yàlla. mu wax ne am na ci seeni jabar ak seeni doom fitna. mu wax ne am na ci seeni jabar ak seeni doom fitna la. mooy rek mu dox sa digganteeg la war sa digganteeg sa borom. mooy mu dox sa digganteeg li la war sa digganteeg sa borom. su boobaa rek jaru ko. boobaa daal jaru ko. da ngay def li la war sa digganteeg sa borom. na nga def li la war sa digganteeg sa borom. na nga def li la war sa digganteeg sa borom. soo ko dem ci jabar ak doom. soo ko dem nag. ci jabar ak doom jabar na def la ko war digganteem ak boromam jabar na def li ko war digganteem ak boromam soo ko jublu ci jëkkëram soo ko jublu ci jëkkëram doom na topp boromam def la ko war digganteem ak boromam doom na topp boromam def li ko war digganteem ak boromam soo ko sàkku ngërëmal wàjjutam soo ko sàkku ngërëmal wàjjutam taalibe na def la ko war digganteem ak boromam taalibe defal li la war sa digganteeg sa borom soo ko sàkku ngërëmal sëriñ bi soo ko sàkku dina ngërëmal sëriñ bi ñett ñu ñëpp seen ngërëm baax na lool seeni ngërëm bay baax na lool waaye na fekk nag nga jiital yàlla waaye na fekk nag ngërëmal yàlla jiitu ku sàkku jigéen ju sàkku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xàq yàlla jigéen ju sàkku sa ngërëmal jëkkër ba bàyyi xàq yàlla taalibe bu sàkku sa ngërëmal sëriñ ba bàyyi xàq yàlla taalibe ba bàyyi xàq doom ju sàkku sa ngërëmal wajur ba bàyyi xàq yàlla doom ju sàkku sa ngërëmal wajur ba sànk xàq yàlla waajur wa du la jëriñ dara sëriñ wa du la jëriñ dara jëkkër ji du la jëriñ dara. sëriñ bi du la jëriñ dara jëkkër ji dara la la du jëriñ. loolu na ngeen ko xam. bàyyi mu ne loolu nañ ko xam. yàlla jiitu ci jaam bu nekk. jaam bu ne yàlla jiitu ci yow moo gën a xëy ñëpp ci yow. yàlla gën a xëy ci jaam bu nekk. yàlla moo gën a xëy ci jaam bu ne. gannaaw bu mu wee nag. gannaaw bu yàlla wee. xaqi waajur lu yàlla réyal la. te lu yàlla réyal la. gannaaw loolu wee. ginnaaw bu loolu wee. àq ah, jëkkër lu yàlla reyal la. te jëkkërit lu yàlla reyal la. Eh, sëriñ itam wàjjut la moo gën a wàjjut la. sëriñ it wàjjut la. wàjjutu maanaa la. la. waaye nag. waaye. yooyu yëpp balaa ñoo yooyu yëpp de balaa jëriñ. yàlla jiitu rek. na yàlla jiitu.